comme ni ngeen koy waxee sànq rek bu may bu may commencé sama papa bi nga xamante ni dem guddi gars yi koy naan dafa décédé yaakaar naa ne mu nekk lu ñaaw li nga nekk li nga xamante ni kenn rafetlu ko alors lool bu amee dañuy ñëw ba fi nga xamante ni moom mooy këram def nañ ko daan defee toog moom waxtaan ak moom. bu ma sori ci wax ji dama xëy jox mu bokk internet Feeling Dakar TV yi koy seetaan ñu di ko mën waxtaan bi papa ñu ngi leen di ma di leen fay. Euh, di profité rek ci interview nuyu bépp kilifay diine moo xam ci kër goo mun si bokk nga yore xilaafa ba ak nga ñàkk koo bañ a yore yëpp sëriñ sëpp maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen tàggat joxe nit seen wàccuwaay ndax loolu lañu ñu xam suñ ko duggee gannaaw loolu ñoo ngi nuyu aussi tamit suñu waa kër ak ñëpp ñoo xam ne ñi xam ne ni te Eh, dafa doon lu doy eh, mën nga ci maanaam xam ñi la bëgg ñi ngay bañ ñaata lañu ngir nga gën a am eh, lecture boo xam ne dañ la ko mën a may parce que dañuy def rek bàyyi noonu nit ñi ñooy jugé mm-hmm. alors bu dee jubbantiku nga war a def war na laa gën a làq ci jub jub ngir jubbantiku mm-hmm. waaw bu dee tamit leneen da loo xam ne nii lu ko raw ci dëgg ngay we bëgg loolu mun na laa yokk imaan ba nga xam ni di nga toog ci dëgg te lépp looy génn salaam yi ne la wóor donc voilà ma euh, comme papa euh, ni nga ko waxee euh, bu ñu jéggee bi ñu fàttali ko ci ginnaaw tuuti amoon na benn jamono defoon nañ ko dara parce que man koo gëm yàlla la mhm. lenn nag romb na sama xel mhm. dama ni su fekkee ni nit la mhm. te doon lu dul nit bëgg man ma dee diitu ko ne ñëw ma jox ko sama bakkan benn yoon donc nag moo fi ne parce que dañ lay xëpp di la ragalloo di la tiitloo ngir kii man awma tiitukaay doomu lakkat la bambara piir la waaw te fa mu soqe ko bu ko xamoon sax du ko def ndax nit kenn du ko tooñ léegi rek waaw ñetteelu yoon kay waaw ba xamoo lu mu ko duggee xam naa ni nag internet moo ko waral parce que comme boo duggee ci internet nga di nga fayoo ko xaalis bu bari su demee ba xaw a ndóol bëgg a dund ci kaw nit ñi di leen rey ndax euh, boo leen reyee ñu gis internet yëpp dañ ciy intéressé wu te ku ubbi rek yow nga fayee ko comme loolu moom am na bañ ci duggalee xaalis boobu lépp yàqu da taxoon nag internet jóg du woon loolu ngir ñor la ci wàllu koom ba am loo xam ni soo xamoon ni bu duggee sa biir la mu ciy def wallaahi doo ko nga li mu ci def na nekkuñu fii di wax ak di yedde ak tamit di xamal nit leen daal xam nañ ko nga bàyyi tooñ parce que tooñ baaxul alors comme ni nga ko waxee euh, na bàyyi tooñ ndax tooñ baaxul alors gis nañ tey euh, ñu bari ñi nga xamante ni euh, nekkoon nañ ci art bi nekkoon ay icône ku ci mel ni Père Golbert Diagne ak ki nga xamante moom mooy Bass Diakhaté avant ñi génne àdduna ñoom génnoon nañ daan kaas li li nu mel tey ji yan maanaam matukaay la ñu war a mën a jël ba li nga xamante ni mi ngi am à chaque fois muy bañ ñu am heure ak waxtu yoo xam ne danañ ko ubbi mhm. pour am internet ak waxtu yoo xam ne dañ koy tëj même loolu sax soo ko defee gént naa ni taxul ñu bàyyi parce que Sénégal yi de nature dafa dëgër bopp di nga koy tere toujours daf koy def nekkoon ci réew moo xam ne ku def ñu rendi loolu dina tax parce que rendi moom nit ñi seen xel demu ci parce que dañuy demaleeg wax ni rek ci seen xel ni droit ci man d'autant plus que dëkkuñu ci dëkk bi donc amuñu droit ci man donc loolu day indi jeexi jaaxa ci xelu nit ak xolam ak xalaat li gën daal mooy. loolu. mën naa nuru ay invective yoo xam ne da def te am bopp amul génn. cest à fi nga koy weer ba tax nga def loolu. moom la ñu gisul. mais fi nga koy weer ba tax du ñu su fekkee ne lu wéeree nañ ko geneen wéerin boo xam ne nii mm-hmm. mooy gën ci nit ki defe naa loolu moo gën a baax mm-hmm. waaye nag fañ ko jubal mm-hmm. dafa xaw a doy waar parce que dara gënul metti yëngal say mbokkam téléphone seet ba xam ndegam dëgg la am du dëgg euh, man ñooñu ñëw ma gën a dëgër fit parce que boo woowee nit ki ñu la dafa faatu wala moom portable bokk xaw ma kan moo ko yore wala yorewu ko. Mhm. wala nga woo ko dégg ni mi euh, en fait euh, safaanoo na leneen loo xam ne nii. Mhm. Euh, bokkul ak li nga doon xaar. Mhm. pour am ko comme nouvelle. donc doo def lu mooy toj si bopp. bu boobaa la nga bëgg yëpp du mën a am. li gën daan mooy soo yëgee. boo mënee doxantu ba kër ga. tant mieux soo mënul doxantu ba kër ga ku xam ku ko xam. nga jéem ko laaj ba xam. ko defee moom mën na la jukki euh, xamal la loo xamul woon nga bañ a def erreur. si nga xamante ni jege na ko yow yaakaar naa xam nga yéen da def liggéey boo xam ne pour xamal nit ñi la pour dindi tuuma. Mhm. waaw donc dañ koy jëlee noo xam ne nii. Mhm. yoon la ngeen war ko def. Mhm. pour leeral nit ñi. Euh, ñu xam li dëkk. loolu dafa am solo ci liggéey bi. Euh, nit ki li muy wax na ko xam. parce que du liggéey boo xam ne dañ ko ubbi. la neex nga def ci dafa am leneen loo xam ni nii moo tax ñu koy doyee ñoom tooxi doon rek di exploité loolu bu ko defee day nekk loo xam ni nii du solool njaboot gi du leen ci wàllu jàngam xel mhm. comme ni nga waxee euh, bi loolu amee sa njaboot yi euh, ñëpp a jaaxle moment boobu nag nga ko dundee woon ak ñoom parce que euh, neexul ñu ne sa kilifa dafa génn àdduna te lool noonu daal du ci dëgg moment boobu nag. day nekk moment boo xam ne jafe na tekk mhm. lu tax mu jafe tekki xam nga dee bëggu ko day indi naqar waaye li may ñaan rek mooy ñu bañ koo métti lu parce que buñ ko métti lu ko rek dafay mel ni affaire bi dëgg la donc euh, waxuma sax jooy neexu tamit sa xam nga sa kilifa mu génn di ko annoncé ci li nga xamante ni dara wéru ci tamit day xaw a métti tuuti rek bu bu fekkee nii da nga cardiaque mhm. nii niñ ko annoncé mhm. wax ni cardiaque moom a rek mhm. fekkee day ab beneen néew. waaw waaw kon nag moom. même booy annoncé sax. effet bi ci boppam war nga ko mën a calculer. da xam nag ngay am. jékki-jékki na ko paw mu ne ci mel ni ku ko puudar. donc euh, dafay metti metti comprendre man am foo xam ne jaar naa fa. mais. dañ ma doon xoola ko xoolaat. bi ñu toogee ba gindi leen wax lañ fa doon wët. Mhm. ñoom seen bopp dañ ñoo dañ ñoo. vraiment dañu ubbi loo xam ne nii. gisuñ ci lenn lu dul njëriñ. waaw parce que defewuñ ko comme niñ ko déggee. dañ ko defar comme niñ ko gisee. mu di euh, yaatal nañ ñu. Euh, gannaaw yaatal bi euh, xam nañ ni war nañ delloo seen bopp ci yàlla parce que yàlla mooy reye. donc li ci des yëpp ay mbir la yoo xam ne nii sa dépend ci philosophie. bi bi nga koy jëlee mais dee neexul kenn mhm. reyaati neexul kenn mhm. diw dafa faatu mhm. te fekk faatuwul waaw kay am na leneen loo xam ne nii war nga koo xinte di ko foye te loolu nga di ko annoncé njabootam mu am na ñu parce que njaboot gi mën nañ dégg faatu rek mu amaat fa yeneen yu faatu parce que duñ ko gëmee d'accord leen di bett ñi ci kaw ak ñoo xam ne tey ji sànni la euh, wala seen portable boobu day xaw a métti benn moment <laughs> waxuma lool sax mais mhm. fii ay mbiram dafay bett mhm. te loolu am na leen lu ko gën mhm. wax loo mën def loo mën boo tëddee nelaw dañ yaakaar nañ ci benn ponk rek la tekki <laughs> mais béy na ba ci li nga xam ne nii lu koy wax donc euh, maîtrise en soi moo la mën a may nga xam lu jaadu ak lu jaaduwul ngay def li jaadu li jaaduwul nga du ko bàyyi parce que moom dafa kéemaane lool lool lool kooku moom wax yàlla yàlla ci yàlla wax lu ci gannaaw dëgg nag moom dafa am lu mu ëmb maanaam ay fen kàcc dégg nga ñaan nañ yàlla yàlla omatuñu ci jub ba nga xam ne yooyu duñ ci dugg alors euh, papa comme ni nga ko waxee ni biñ ñëwee laajte euh, sa doom bi nee na démb ba léegi ñu ngi koy woo alors tey toog nañ ñu bari ñu ngi lay woo ba émission bi sax yaakaar naa ni xam naa ne tey du xaw a sori parce que appel yi. Euh, papa lan nga jàng moom rëy na. Mhm. parce que du yem ci benn kàddu ko waral. amee nit koo xam ne nii sa mbëggeel xaw na sori ci moom. Mhm. Euh, sa xel day du du jóg ci moom donc euh, ñu annoncé la wax la ne la yow day sa nit kale xam nga fa ngay toll ak na nga koy yëgee na nga koy déggin wa am solo mais yow déggin bi day ànd ak loo xam ne day laxasu mais lu doxal te fekk yow nañ ko waxee la ak nañ koy déggee donc euh, loolu moo ci am solo ñuy wax nit ñi daal bu fekkee ni xinte nañ ko nañ ko bàyyi bu fekkee ni aussi tamit muy daw seen yell ak euh, li indi xol bi baax dégg nga loolu aussi tamit war nañ ko ci daw waaw parce que mën nga annoncer nouvelle te loo ko jaaree ci loo xam ne nii dafay dafay sori ci dégg waaw boo ko simplifier rek dana neex a dégg te nit ñi def attention soo gisee ñuy tere nit ñi ne yow bàyyi bul ko annoncé deewu nit loolu mooy tout simplement neexut a wax waaw chaque fois boo annoncé nit ne ko yow kat sa waajur dafa génn àdduna mm-hmm. ne mu koy jëlee mën na doon loo xam ne dana leen boole waaw te loolu la nga ciy war a daw alors euh, yaakaar naa ne loolu am solo euh, nee naa la suñu papa nga à chaque fois dañ lay soxla même bi nga xamante ne moo nekkul lii euh, des fois dañuy soxla di am say idée ak say xalaat parce que yaakaar naa ne képp ku la déglu rek di nga am ci li nga xam ne lu bari njariñ lay nekk ci yow bu ñu jógee foofu rek yaakaar naa ne sama papa moom mi ngi fi dañ koy ñaanal mu gudd fan mu gudd fan ci barke Seydina Mohamed alors papa gis nañ jamono ji politique bi doy na yaakaar naa ne tamit bi ñu toog ak yow dina la laaj en tant que père de famille en tant que porteur de voix ndax nga gisee li nga xam xamante ni euh, bi moom wax dëgg fa yàlla. Euh, man day rafetlu ma ko. parce que jaar ci ay invectives pour jot nit ki pour lan. politique bi pour loolu. am na ñu ko firee ne c'est l'art de bien tenir la cité. am na ñu koy firee neneen. dañ yaakaar ni xaste ak euh, dëkkal nit ki fu mu warute dëkk. ak jéebaane ko ak torox. yooyu mooy politique déedéet lu bokkul ci politique da ngeen di jongante ci wàllu ay gis-gis donc gis-gis yooyu mën nga yemale sa kàddu ci d'abord nga gërëm ki nga nekkal taxaw moom parce que li li mëtt bëgg la bar bëgg nga rax ci dolli loo xam ne nii day jëriñ askan wi dégg nga foofu lañ lay xaare nga def ko mais jékki-jékki euh, daal di indi ay mbir yoo xam ne day day jégg dayoo kenn natt ko ci xel eh, indi loo xam ni wax dëgg fa yàlla duñ ko sopp ay kaddu yu ñaaw ak gis-gis bu ñaaw ci nit ki mm-hmm. ay invective ni ko tubaab bi waxee eh, loolu jekku rafetul bu nit ñi di ko def ci yeneen assemblée yi mm-hmm. c'est pas parce que nit ñaa ngi koy def ci yeneen assemblée que ñun dañuy war a jéggaan yi seen jikko mm-hmm. waaw bu fekkee ni aussi assemblée yooyu day yëngu lool ba nit ñi xaw a jël ay euh, daamar di ko dégg nga naan daamar sax ngànnaay di ko di faagaagal nit kooku jaru ko bu mujjeewul ci waxtaan dégg nga bu jëkkee ci leneen yi dégg nga jukkee ku ca loola dafay metti waaw parce que doo ko mën a dàq doo ko mën a baax parce que sa yaram gis na ko miin na ko ba nga xam ni nii sooy dem politique daal na nekk loo xam ne nii lu yiw la mais bu jéggee kàddu yiw bi rek nuru na leneen. yaakaar naa ne dinañ am fu bari fi nga xamante nañ ci waxtaan euh, gis nañ li nga xamante ne moom mooy procès Ousmane Sonko mitinam bi nga xamante ne defoon na ko Kër Massar moom Mame Mbaye Niang ak procès bi ñuy wax diggante moo ko Adji saar alors euh, papa avant ñu dugg ci loolu dañoo bëgg a xam sa diggante yàgg Ousmane Sonko. waaw Ousmane ma ko faralee di wax. moo tax. waaw Euh, moom dafa euh, sama doom dafa gaañu mu ñëw seet ma waaw bu jigéen jaxal ma pour la première fois ma gis ko sama kër mais ndekete yoo du benn yoon boobu la ma sa ñëw kër ga parce que xale yi sax ñoo ko wax. moom mooy procès euh, moog Adji Sarr tamit tey papa boo toogee comme ni nga ko waxee usman soo ko seet ngeen loolu loolu yëpp nekk ci ginnaawam. xanaa am yaakaar rek ne ces grandes guerres ont fini par autour d'une table d'une table du moins comme excuse alors donc euh, je crois que loolu muy problème mu Adji Sarr kooku beneen mbir la problème mu Mbaye Niang j'ai pas l'habitude de parler de lui mais euh, je conçois que c'est un, c'est un personnage quand qui est mature Euh, xëy na du ñàkk nag parce que nit matul ba nekk ci définition boo xam ne nii euh, day ubbi leneen ci moom mais mm-hmm. tout simplement dana bett nit ñu bëri parce que mm-hmm. ni ñu ko yaakaaree je crois que euh, à cause de sa politesse et tout ce qu'il incarne mm-hmm. je crois que buñ ko yóbbu ci loo xam ne nii non yaa ma laaj ma waaw Euh, gént naa ci moom it koo xam ne nii. Mhm. ci dëgg lay taxaw te ci dëgg rek lay lay lay wéy. Mhm. Euh, je l'ai pas dit parce que tout simplement on m'a taxé de mhm. de mais tout simplement je crois que li ma xam ci moom tuuti la. mais je l'ai entendu parler. xam nga nit ki nag boo ko jegewul. ci na muy waxee ak déggin wa rek mm-hmm. vraiment je conçois que ni moom luñ ko bëgg a dugal te neexu ko mm-hmm. bien du waaw mën nañ mën na xam nga nit ñi libre nañ ci xalaat mm-hmm. mais dañ xaar ba loolu am ni soog koo wax parce que lu ñorul nag kenn mën koo lekk comme par exemple yàpp wu ñorul nga bëgg koo teg soit ci cin li soit fañ koy lakke bëgg ko lekk te ñorul du sotti Euh, làmmiñ aussi du du yëy borom ma dégg nga euh, dafa nekk loo xam ne nii xëy na fañ ko foogee sax nekku fa xëy na fañ ko foogee nekku fa euh, moi je crois que on finira par se trouver autour d'une table te nga xam ni dara ñaawu fi. meeting bi Ousmane ko génn ay kàddu euh, ne li nga xamante ni moom mooy dem na euh, ci almeeri papaam yi dem ñaan ñaanal ko jóge dem ci pijaayam tàllal ko loxo def ay testament am alors tey loolu am sénégalais yi bari yaakaar que ni euh, dafa violent yi kenn xamul est-ce tey loolu noonu mënul taal ak li nga xamante ni parti au pouvoir tamit ñoom ba léegi fi ñu nekk nekk ñu fa est-ce que tey loolu bu waxtaan amul maanaam solution mën a am du jéem a réew mi. les grandes guerres. Mm-hmm. ont toujours fini autour d'une table. Le Sénégalais de nature, c'est pas un animal. Mm-hmm. dégg nga pour forcer les choses. wala daal di ne nangam nangam nangam moom kay. Mm-hmm. Sénégalais bu ñu koy wax ci jom. duñ koy fekk ci moom. suñ koy wax ci Pastef ak dogute. ci engagement am da koy fekk ci moom à moins que. mu nekk koo xam ne nii ku lëj. lëj mooy day jouer. avec sa personnalité yaakaar naa ne képp kuy sénégalais doo nangu loolu jouer avec sa personnalité waaw en vertu de quoi quelle est son importance jouer avec sa personnalité da lay wàññi day tax nit ñi la ñu gëmoon ci yow dot ñu ko gëmati parce que dañ naan kii du waxkatu dëgg naa fekk la ak nangam nangam xam yenn kii yi rek étiquette yi mhm. dañ la koy collé mais yaakaar naa ne duñu yegg ba foofu am am naa ci yàqin. Mm-hmm. moo raw yow yaakaar boobu yàqin bi mooy gunge yaakaar ci boppam donc yàqin bi moo di rek tout simplement kenn ku nekk je remarque ku bëgg Sénégal la nga bëggee ab réew ba pare di ko yàq. Mm-hmm. nag nga bëggee ab réew euh, def fa coow xuloo yooyu. Mm-hmm. ba nit ñi jàppante muy indi ay wax ak yéegal ak wàcce ak. même bu dul loolu sax kenn bëggu ci que le soit en feu et en flamme mm-hmm. le bon sénégalais mm-hmm. non du nangu loolu nguur jaru ko mu nekk message ci am solo ma nee naa leen à chaque fois day ñëw toog xanaa di wax police ne ko dañu war a jot ci loolu parce que lu ñu musul kii la xam nga dafa am loo xam ne buñ ko toppee topp ko topp ko ba mu yàq ay nit comme am na yu sew yoo xam ne mën na ko nas ci biir te day yàq nit mm-hmm. donc euh, vraiment en toute sincérité je crois comprendre par là may wax leen ne leen jinne yeeg rab yi ak gisoo tem tem ñu daan ne jinne waaw ci demee noonu aussi tamit la jinne yu bëgg parce que daf lay leer ni ubbi leen bunt boo xam ne nii mën nañ ko yàqee nit ki donc te ñoom li leen tax a jóg mooy yàq nit ki dañuy namm yooyu ba dañ leen ci xirtimal en tant que boo toogee dégg loolu culture la rek loolu nag. non même bu dee culture. Mhm. du lépp baax ci culture am na loo xam ne nii baaxul ci culture. Mhm. lu dul jëriñee. Mhm. c'est pas la peine. culture ke mooy luy jëriñeen jëriñ nit ki di ko dundal di ko avancé loo. mais loo xam ne daf koy delloo ginnaaw nga culture la nañ ko bàyyi. yow kay. da nga bëgg a bonloo culture bi parce que foofu la ñuy wékku naan waaw culture la non buñ fa wékku culture dafa set xel mu set moo koy eewu xel mu set moo koy nangu xalaat yu wér peŋ set wécc waaw di jàngale di xamle di tete dégg nga ba dugal nit ki foo xam ne nii fu yiw lay doon culture lu yiw moo ko tax a ñuy li ñu tuddee civilisation yiw donc lu bon loo xam ne day yàq ne dégradation des mœurs boo lay omat c'est pas la peine de le faire bu bu fecc bu mu pousser nit ñi ba ñuy def loo xam ne nii c'est pas acceptable wane sa cër moom fecc wane sa cër yàgg na fi gaa mais ca fankñee bi fecc ko sa kanamu jëkkër waaw sa kilifa daal boo xam ne sëy na yow nga feccal ko dara nekku ci waaw mais mooy xawa a doy waar parce que ñun am na suñu culture lu muy nangu ak lu mu dul nangu waaw donc euh, fecc bi ci boppam fecc culturellement am na yoon ñëpp ko mën a seetaan boo demee Sorano lañ fay fecc yu boobu nag bu mu yem rek Sorano defal sa néeg Sorano waaw déggoo li ñuy wax maa ngi ko déggee ci sëñ xaas ñëw ci kanamu seetam simeeku ba set di diwu mhm. mais loolu seytaane daf koy jege ba moytuwul mu rax ca wala jinne def ko mhm. dégg dugg ko ba nga xam ne nii day indi beneen melokaan ci ni xelu nit ki mhm. parce que man naa ko seetaan naa fi ay euh, vidéo mu nekk loo xam yiw la ci nit ku ci ommatu dana la génni ci wàllu xel ak xalaat ba ci xol looy nangu ak loo dul nangu. waaw mhm. papa dafa mel ni Abdoulaye Diop xaas euh, yaa ngi koy suivre yaa ngi koy bàyyi xel bu baax alors jamono jii ñu gis ki nga xamante ni moom mooy diggante ak moom soxnaam divorce am coow lu bari naka nga ko dundee. non xam nga nit ki day xam ñamam di ko lekk. loo xam ne nii man fekkewu ma ba ñu takkante. Mhm. xaw ma lu ñu jotee. lu ciy sama yoon. Mhm. mais comme sénégalais ñu ngi ciy di nga sénégalais yi am na sénégalais yoo xam ne nii. Mm-hmm. yar moo leen tax toog jàpp seen jàmbur ci loo xam ni kenn du la ci dugal te mm-hmm. mënoo ci dugg sax parce que nañ bàyyi nag nit ñi di di di xam nga d'abord fi mu njëkkee mooy. Mm-hmm. di sëy siiwal ko. ñu foto la fii ngay jàggar jàggar bi ñu solee ko simmee may nga nit ñi loo xam ne nii bu ëllëgee. waaw ñëpp koy wax. Euh, nga di ko boo ko tiitaroowul. da ngay xool sens ban nga ko dugg. bu njëkk ba da daan takk ñu maye ci jàkk ji jeex na. li ñuy def ñoo ngi koy defee ci kër gi. mu am loo xam ne nii vraiment vice de forme la boo xam ne bañ ko tiggee ba dàq ko. vice de forme existé tout nit ñi daal di yaakaar na ubbeeku nag daf ko jot. Mhm. naka ngay takk rek yomb na. dafa jar siiwal yenn siiwal yi dëgg la alxuraan nee na nañ ko siiwal pour nit ñi xam dégg nga mais nag du siiwal boo xam ne nii da ngay démesuré da ngay def loo xam ne nii séntu woon séntuwuñu ko ci woon mm-hmm. waaw loolu moom man dama ko contre yaakaar naa ni euh, lu ñu amoon ci ay minutes euh, jeex na bëggoon nañoo waxtaan yow ci lu bare bare bare mais xam nga temps bi boobu léegi comme ni la ko waxee yow suñu papa nga euh, site internet yëpp a ngi ñëw te boobu léegi da ngaa toog di leen accueillir ñu ñu rafetu loolu bu baax a baax a baax di la ñaanal gudd fan papa yàlla na fi yàlla bàyyi ci bàkki Seydina Mouhamed lan ngay tàggatoog mbokk internet Feeling Dakar TV ak ñi nga xamante ni soof nañ la à chaque fois ci barke Seydina Mouhamed nga bujj wax mhm. ci yal na yàlla def ba lépp lu ñu fi wax mu jëriñe te bañ a safaanoog jëriñ waaw di ñaanal nit ñi ñaanal suñu mbokk ak ñu dul suñu mbokk ñëpp wax leen ni vraiment dindi tuuma du dara xamal nit ki rek mais doon wax dara amu ci di ñaan yàlla gudd fan ak wér di ñaanal ki nga xam ne nag mi ngi def loolu wax dëgg fa yàlla na moytu eh, dara dab ko ci parce que tooñ yàlla bëgg ko waaw loolu daal lay wax muy sama wax boo xam mooy tëj. Mm-hmm. li nga xam ne moom ngeen ma soxla woon. Euh, jërë ngeen jëf suñu mbokk internet euh, Feeling Dakar TV comme ni ma ko waxee à chaque fois euh, suñu papa la gis ko sàng bi muy ñëwee rek ndeysaan mi mi kaf ak ma naan ma génnal ci kër gi ma ko papa lu tax mu ne ma parce que depuis bi ñu defee émission ba léegi ñëwoo fi seesi woo ma mu nekk nit ku baax di ñaan ñi nga xamante ni dañuy génn à chaque fois di annoncé li nga xamante ni teguñu ko fenn loolu rafetul ci kilifa bi nga xamante ni amul lu ñu defal loolu ci fii nga xamante ni moom mooy Sénégal su toog ak suñu papa yi ak ak sax suñu yaay yi bi ñuy jox exemple ci wàllu théâtre